julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ñu ngi am mbégte lool ci teewaay bi nga xam ne ñu ngi am mbégte lool ci woyu si ngeen ñu woyu ci jataay bu màgg bi mooy jataayu alquranul karim lu jiitu daal ñu ngi masawu ñépp coono di leen sant di leen ñaanal ki nga xam ne moo yore lépp mooy sunu borom tabaraka wa taala coono yi yépp yàlla na leen ko yàlla bindal yiw yàlla def ko mu nekk farukaayu bakkaar bi xaqi asmaa illahi alxusna wa sifaati al ulya xam naa di sof sama kàddu rek ci kàddu Cheikh Ibrahima mbay ci mbégte bi nga xam ne am nañ ko surtout ci kilifa bi nga xam ne mu ngi jóge fële ca Touba ñëw wettali ñu ci jataay bi gànnaaw biñ ko tànnoon darajalee ko jataay bi am nañ ci mbégte lool ñu ngi ñaan sunu borom yal na ko yàlla fay yiw xam naa fi ñu tàmbalee rek mooy lenn ci ay injaazaat yoo xam ne daara bi am na ko ñu tànnoon ci ñeenti xale yoo xam ne dañ koo bëggoon dañ leen a bëggoon a sargal ci kanamu sëriñ bi ngir ay jaloore yu mag ak euh, góorgóorlu bu mag boo xam ne def nañ ko ci daara ji ba lu génn daara bi tamit ñu def ko bitim réew ba ñu ñibb si fii ci réew mi ndax dafa am loo xam ne nit bu ko defee kanaa lu mu gàtt-gàtt nga ne ko jërëjëf ndonte boppam la ko defal ñeenti xale yale toog dañoo bokk ci produit daara bi nga xam ne fii lañu ñu jàngee ba yàlla dogal ñu mokkal alquranul karim ñu jóge fi dem bitim réew jàngee fa ba ñu am fa ijaaza ci ilmul qiraat moo tax seen góorgóorlu boobu ñu ne nañ leen sargal ci bés bi daare ji jox leen ay shahada ñeenti xale yooyu kiñ cee njëkk a tudd mooy Mam Ba moo nekk doomu daara ji nga xam ne bi mooy mokkal alquran fii ci daara ji juróom ñetti at la am yàlla dogal bi mu mokkalee moo dem Muritani def fa ilmul qiraat ba mu am fa ijaaza ci wàllu njàngine alquran yi mu ñëpp fii fu mu nekk nii mu ngi continuer ci daara ji jàng ay téere xam-xam waaye mu ngi continuer ci école bi tamit di jàng franco arabe mu àndoon ak magam bu tudd Gumbo Ba moo toog noonu ñoo àndoon Mauritanie gannaaw bi mokkalee fii ba yàlla dogal moom mu am fa ijaasa ñetteel bi mooy Mouhamad Salihu Diallo xam ngeen Mouhamad Salih bi mu mokkalee fii alquran defa defoon musharaka ci concours national bi ñuy def fii ci réew mi yàlla dogal mu bokk ci ñi raw ci concours boobu ñu daldi ko tarsi mu dem fële ci Égypte Sharm el mu bokk foofu ci eh, concours international mu jël fa rak mu raabi ci ñi bokkoon ci concours boobu ci jor juróom ci quatre-vingt-seize pays yi fa daje woon moo fa jëloon rak mu raabi ci concours boobu bi mu ñibbisee tamit ñu daldi ko tarsi benn concours international bu doon def fële ci Kuwait mu nekkoon téeméeru réew ak ñaar fukk ñoo fa daje woon ci àdduna bi waaye mu bokkoon ci juróom ñetti ñi ci concours boobu bi mu ñibbisee fii ci réew mi tamit am na concours national bu doon am fii te waa Touba TV ñoo ko organisé woon concours boobu moo ci jëloon Rahmou Saani loolu jàpp naa ne am na seede ñoo xam ne ñu ngi teew fii ci place bi fekkee nañ ko ñeenteel bi nag mooy koo xam ne mooy Mohamed Ly Mohamed Ly yàlla dogal na mu ñëw fii ci daara bi nekk ak ñun def fi juróomi at ba yàlla dogal mu mokkale fi alquranul karim mu def musharaka ci concours national bi seni ko doon organiser fii ci réew mi mu daal di at me ñu tarsi ko moo bokk ci concours international fële Malaisie moo dem fa mu bokk ci asratul faizin ñi nga xam ne ñoo rawoon ci concours boobu bi mu ñibbisee fii ci réew mi mu continuer ak ñun di jàng xam-xam di jàng fiqh ak ulumu shar'iyya ba mu gën a defaraat njàngam ci riwayatul xafs ba mokkalam gën a leer ci loola mu daldi dem Muritani def fa ñetti at mu am ijaza ci qiraatul ashara ak yeneen motuun ci wàllu xam-xam mu ñëpp fii ci Sénégal ñoo daal di ko tas jéel ci markazul islami daarul iman mu defar fa benn at moo bokk ci imtihan bi doon am foofu foofu amee shahada sanawiya moo daldi di ci taqdir imtiyaz moo amaale shahada bu gouvernement bi ci loolu nag la amee minha moo dem fale ca ordon mu continuer foofu njàngam ci def taxassus ci wàllu xam-xamu alquran ba yàlla dogal mu am ijaazatu suxra ci wàllu njànginu alquran ci riwaayaat yi fa mu nekk nii mu ngi continuer ci université boobu di def taxassus pour mu am bi maana ijaazatul kubra incha allah danañ ko jox léegi kàddu moo am yenn ci ay riwaayaat yoo xam ne miinuñ ko woon ci réew mi mu daal di ci barkelu ngir mu seede loolu ñuy wax insha allah kon ci lii dafa bokk ci inzazat yi nga xam allah kon Cheikh Mohamed li man nga yëg ci kaw nga barkelu ñu jox leen seen diplôme insha allah tafaddal mashkur